ADOP di kuréel gi nga xam ne moom moo lëkkale mbooleem jaaykati gerte yi yëngu ci dëkk bu sell bi di Touba jamono ji nag li nga xam ne moom mooy seen mébét fexe ba formaliser li nga xam ne moom moo jëm ci kuréel googulee ndax ñàkk koo seen pertement rek lay doon ñuy tudde seen bopp association des opérateurs économiques pour le développement de Touba jamono ji benn mébét rek la ñu am mooy fexe ba dugg ci kuréel gi nga xam ne la ñuy wax seña ñu mën leen a boole fa nga xam ne fa la ñuy dogalee ak def ak dindee ci lu jëm ci wàllum filière gerte ci réew bu Sénégal lii nag tax ñu daal di amal ci ayu bés bile ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk yorin dëkk bu sell ji tuubaa ab séminaire ngir xool naka la ñuy fexe ba saafara jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy am. waaw loolu moom am na ndax dox nañ si ay at fekk suñu bàyyi si filière bi ak suñu mag gis nañ ni somme yan yoroon di ko liggéeyee ñun fi mu ne tey ñoo nëpp capital avancement yi des na. li monsieur le sous-préfet wax léegi rek golo di bay baabun dunde loolu doon bañ ñu gis ni kon ku tegu ci yoon it bis day ñoo ngi tegu ci yoon loolu moo waral organisation bi campagne bu gerte gi daal di door nguuru Sénégal daal di fixé prix bi ci ñeent fukki dërëm ak ñaar terewul kuréel gi di adop ñoom di fësal ne tàmbali nañu seenum jënd booba ak léegi mat na weer ngir Touba day jëmmal lu am solo ci njaayam gerte ak njëndum gerte ci réew bu Sénégal terewul nag buñ formalisé kuréel gi lee campagne bi mën nañu koo doorandoo ak état bu Sénégal ñun nag amul tranche dañ siy nekk ndax fi mu ne nii ñu wax ak yéen jiit nañ depuis un mois ñu ngi liggéey ci gerte loolu itam bokk na ci bu ñu gënee formalisé wu dana mën a dem ba xëy na di départ ak état. waaw situation gerte alhamdulilah rabbi nañ ci wax ndax gis na ni production bi ñu am ñaari at yi gis nañ ko am kon loolu xëy na baaxu yàlla ak ndimbal ndimbalu yàlla ak baaxu sëñ bi kon donc loolu dañ fiy sant yàlla suñu borom bu baax a baax. pare nan nag si dugg ci campagne ndax ñun xamul lu gerte moonu yóbbu fi ñu toll. lu am gerte kon moom pare nan si suñuy pexe ak suñuy moyen ànd ko état bi si campagne bu mucc ayib. ci biir séminaire boobule ay njariñ yu bari daal di ciy génne waaye itam ay solution yu bari daal di ciy génne ci naka la ñuy formaliser li nga xam ne moo jëm ci marché gerte bi ci Touba. waaye naka la ñuy fexe boore kuréel gi ak kuréel gu mag gi nga xamante ni mooy Nasaka Nocc ci wàllum jënd ak njaayum gerte ci réew bu Sénégal te loolu leen mbooleem autorité yi ci dëkk bi jàppale nañ leen ci ci séminaire boobule. waaw jafe amoon dafa mel ni séminaire bi solution feeñ na si. ndax bi si jiitu mooy ADRA doon membre CENA yàgg dañ ko topp bay El Hadj joxe na ci lu leer jàpp na ne xëy na ñu ngi si ay euh, négociation pour nangul na ko. beneen bi des mooy surtout le problème bu mag mooy financement ndax ñu ñoo dajale suñ biir rek waa ADOP chiffre d'affaires bi ñu def si un an et demi. 60 milliards suñuy pexeek suñu xaalis yi ni suñu bàyyi bàyyeeloon ak ay volonté moo ko def kon nag jaadu na fi mu ne nii banque accompagné ni mu accompagné yeneen kuréel yi dafa leen lettre de garantie ñu mën di liggéey pour développer réew mi. bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu Mouhamed Ndiaye mi njiitu kuréel gi lee ma ngay fësal ne seen chiffre d'affaires ci at ak genn wàll ji nga xam ne moom la ñu génn toll na ci juróom benn fukki milliards ñoom jaaykati gerte yi nga xam ne ñoo yëngatu ci dëkk bu sell bi di Touba.